mbokk yi ñoo ngi fii ci kër gi nga xam ni mooy ëttub sëriñ Mbacke Diarra jóob bu ne sëriñ Mbacke jaara Diop nag ni màggalug Daaru Diop wàcc nan ndax bis bi nga xam si ni moom la ñuy defal way juróom bu tedd woowee muy sëriñ ma Massamba Diop Sam sëriñ Mbacke jaara mii ñu nekk ci këram gi ak leeram la woon doonoon doomam joo xam ni doom ju yoonu murit xamoon la ci liggéeyal sëriñ Touba waaye xamoon ko ci liggéeyal lislaam tey jii ñii ñu ñëwoon fii ci kanamu sëriñ Hamsatu Diop mii nga xam ne si ni kenn la ci leeruk sëriñ Mbàkke jaaro googu sëriñ Alaaji bàyyee ko kàddam bàyyee ko léppam muy wax ci kàddu waa kër sëriñ Mbàkke jaara gépp kon sëriñ bi bisimilah. salaamaaleykum yéen bokki taalibe yi bokki dëkk bi ñoo ngi leen di nuyu lu bari lool di leen laaj seen jàmm ak seen jàmm yaram di leen xam ne duñ leen fàtte benn yoon woote bi nag yàgg nañ ko woote ci dëkk bi lool daa gën doubler te gën a jëm kanam rek waaye maa ngi fàttaliku 75 ak 76 bu ci ne am nañ fi màggal goo xam gu rëy la rëy rëy la bi daa mel ne lu raataatoon waaye ne ginnaaw bi gone yu ndaw yi nag yeesalaat ko ba mu toll fii nga xam ne léegi nu mu raata woon rek yëkkati ko waat na ni ne loo xam ne rek ñu la mel fi mu ne ci am doole ak wisi gi ñu ci wisi te lépp baatu ndigal nekk ci ndigal rek moo nu ko may boo nekkee ci ndigal moom bis yàlla sàkk da ngay gën a jëm kanam waaye doo jëm ginnaaw mukk loo mën di nekk loo ne day jëm kanam waaye du arrière mukk kon nag noo ngi yàlla bu baax nekk gi nekk ci ndigal rek ku nekk ci ndigal moom ca kanam rek ngay ne doo arrière mukk màggal gi daal man ni ma ko gisee moom ëpp na juróom fukki at nii ma koy xam ci dëkk bi wala juróom benn fukki at waaye nii mu doxee nii moom leer ma ni day gën a avancé waaye gënut arrière kon nag yéen fi yàlla fe yàlla fekke loolu rek ba lu ñu fi mën ren bu déenee nu mën lu ko ëpp ñuy wéy ci rek lépp loo xam ne war nañ ko am ci suñu dëkk bi itam nu fexe ko amal suñu bopp rek bañ a yaakaar doole kenn nangoo ñaq rek te muñ boo ko defee bu say naqarit suba dana neex ndax suñ tubaab bi ñu ko yóbbu ci géej gi kat aw fas rek la waroon te léegi avion yeeg saxaar yeeg biis yeeg autoroute yeeg lépp ngi wut si Touba te façon moom waroon di ko rambal rek a taxoon dégg naa ñu mu àndoon ak sëñ Massamba Diop Sam ak maam Thierno Yoro di wër ab dërëm rek bu faye fayee ab téere bu mu jëloon ci naar war na Kajoor war Jalaal wër Mbawal ak mel na mbaam rek la ci xam jëmbeelu boobu ñu doon jëmbeelu nag moo tax wa tey murid yi di wëreelu fu ne waaw dem ci avion yeeg dem ci addina bi foo réew moo bëgg taxaw taxaw fa kenn du la téye ci dara te du sa maqama du sa xam-xam du sa martaba boo yor baaxul Sëñ Tuubaa rek nu may lépp fu ñu dem rek ñooñu dañ ñuy yaatal ci seen bopp te duñ ko sañ a bañ ba nga lépp lu fa doomi réew mooy am la nga fay ama koy ëpp yëkkati gañ la fay yëkkati la ñuy yëkkati doomi réew ma sax du àgg foofa te loolu kon baaxul Sëñ Tuubaa rek moo nu ko may boo dee dem ba bitim réew di nga xam loolu boo nekk ci biir réew met ba tey noonu kon nag màggal gii feeñal na feeñal na xarbaax yu baree baree bari te sëñ ma sëñ ma sëñ mat Jóob ma Samba Jóob mi ci baayam la ko amee di sëñ mat ma Samba Jóob sëñ ma Samba Jóob la ko amee muy sëñ mat Jóob ma Samba Jóob ci baayam la ko amee sëñ ma Samba Jóob sëñ Tuubaa ko noonu demal fa wetu cerno ndax fii ngay béyee fi dóoru dafa xat te boo dee foofa cerno yor na wu leewu yaatu woo xay ne boo fa demee sa taalibe yi dinañ fa mën a liggéey te yow loo am rek jox ma ko ndax man maay maay dam saan ngay lanti may damsaan ngay lanti noor ma sàmm lu la waay jox rek jox nga ma ko waaye dinaa leen ko denceel fa denc fa denc ba àgg foo xam ne fa la denc baaxe ma jox leen ko fa muy mu yómmal xiyam ma fay leen ko àjjana rek yéen ñëpp ku bokk ci yow rek dina dem àjjana ba ba desal kër yi àjjana sa mbooloo taxaw man la ku bëgg dem nga ne ma ñëpp desal na man la sa kër yaa nga nee da waxal koo bëgg mu dugg ca mu ne kër yi fees na nit ñi jeex nañ te kër yi feesut waaw te loolu nangoo liggéey joxe rek ñu daal bëgg nu feeñ fii fenn yoon nee ko ko bëgguma feeñ benn yoon fii li ma bëgg ëllëg rek mu ne ko Samba loo bëgg mu ne ko li ma bëgg ëllëg rek fii bëgguma fi dara ëllëg rek loo man di am rek dencal ma ko ba ëllëg mu bàyyiwaat ko ba mu yàgg lool mu woowaat ko ne ko ma Samba nga loo bëgg ko loo may wutal rek di ma ko xa di ma ko di ko dencal dencal ma ko ëllëg waaye bu ma ko jox tey tey moo ci jox dara kon nag lii lu fësat loolu génn rek waaye lam nu dencal la nga ci ëllëg te moo ñu dàq lépp nan foofu la nekk rek képp ku di tëlee beet foofu nga war a nekk ndax loolu moom ci mag laa ko dégg yoo xam ne ci sëñ Tuubaa lañ ko dégg ñenn ñi dégg ko ci sëñ Masamba Jóob ñenn ñi fekk jataay ba kon nag foofu rek laay mën a yem ngeen demaat ci kañeen kon jërëjëf jëf sant nañu bu baax jërëjëf euh, sëriñ Amsatu mu mel ni kàddu yi leeral li am na solo bu baax a baax a baax yaakaar naa képp koo xam ne yaa ngi jàkkaarloog ñun ci jamono ji sa xol dina tooyaat ci sëriñ Masamba Jóob Sam di nga amaat pas-pas bu gën a yees waaye am Amsatu comme ci nekkinu sëriñ Mat Diop Massamba fii ci biir dëkk bi sëriñ Modou Diop moom sëriñ Massamba Diop Samb lan bëggoon ku ne ci baaxee rek ñun tout tànk yi ñu ñu mën cee defar suñu àddina li nga xam si ne moo nekk ci kanam nekkinu sëriñ Modou Diop moom sëriñ Massamba Diop Samb ci biir dëkk bi. nekkinu sëriñ Mat Diop Massamba Diop moom moom sëriñ Massamba Diop Samb sëriñ Mat Diop ci ndigal rek ca la nekkoon akuk taalibe gu mat sëkkuk taalibe ndax bàyyam da koo jox sëriñ tubaam mu yor ko ba bi sëriñ Massamba wàcceeb liggéey lañ ko jëli indi ko ni ko maanaam sëñ bi de ma samba mii day eh, ma samba mii day bàyyi wàcc nag liggéey te moo fa mag ca kër ga mun mu ne mu ne na ñëw ma ñaanal ko ñu ne ko ah mu ne day bu demee këram day bu demee ca kër ga day mënut a jóge fii ci ci biir dëkk bi ndax yor dara lu mu lu mën a sol am naa wal rek la yor ak i dumb yoo xam ne ni si du watu du def dara du yoru daal du watu laxasaa yu ba ne ko rek guddi ak bëccëg du nelaw di déglu ndigalu sëñ bi rek xaalis bi nga xam ne sëñ bi mënu ko war a jariñoo ci dara moom sëñ Tuubaa ca njëriñ moom la ko daan gasloo mu ànd ki taalibeem ñu gasi ko fu sori suul ko yor ay mbàjj di ko ci gas bàq bu tooy bi yóbbu ko ba sori sutti ko fabaat suuf su wow sutti ko ca kaw su ca kaw xaalis boobee ba yeer ma fees sëñ bi ni bii xaalis kenn mënu koo jariñoo te yow sama sàmba yow rek yaa ma ci doy te boobu xaalis kenn du ko teg fenn bët tois yi dañu daan taali seen avion luyee ko France ñëw ba ba ba Dakar jël jël train ñëw ba njëriñam bu ñëwee ni sëñ Tuubaa ñun dañoo ñëw jóge France bu ñëw fii ngir ab xaalis rek dañoo bëgg dégg ni xaalis ci dara te yow te te bëggoo ci dara ci xaalis nu xaalis rek lañ bëgg te dañoo bëgg nga jox nu bi bu nga bañ noonu rek moom lañ bëgg mu ne taalibe yi jox leen ko xaalis bi mu ñu seet maa nga si ni jox ko ca lu baree bari bàyyee ca lu xaw a sakkanaare tuuti ñoom xam ga bëkk néeg yi daal ne bu ñu joxee lépp kon bu subaa dépasse du fi am bu sëñ bi jënduloo bu ñu demee ca dëkk ba duñu am luñ ko jënde ba toit ya demee ba nga xamee ne am na diir nag sëñ bi woowaat leen ni leen mbaa dara desu fi ci li ngeen li ñu ñooñu doon laaj ñu ni ka mbàkke de wax bu la wërut de na lu fi des muy daa mel koo xam de mu ne am na lu fi des mu ne loolee fi des nag tali seen digg dem di ko jëli bu fekkoon si nag dara faanul woon fii ci kër gi ci njëriñ xaalis bu fi nekkoon rek ñooñu yóbbu nañ ko ci seen réew tubaab di ko indiwaat fii duñ ko sañ a bañ waaye yéen nag di ngeen sonal ay yoo xam ne dañ dem di ko jëli ji foofa ku dem di ko jëli ji foofa nag force di nga am moom force di nga am ndax ñoo ko waroon na indi indi wuñ ko ña ko waroon na joxe joxe wuñ ko ñu dem di ko jëli ji danañ ko indi fii ba di ci teral di ci tedd di ci teral di ci terle di ci joxe waat addiya joo xam ne ci sëñ sañ ma jëm sëñ Mat Jóob moomu nag bi mu ñëwee ci sëñ Tuuba ñëpp dañ ko ne sëñ bii day ah néew na fa doole lool te am na ay rakk yoo xam daal féete nañ ko kaw mu ne sama yetti moodu yii de ku ma ci moytu wut di nga ma xam tey xam ma ëllëg muy moodu ma sàmb moodu awa balla moodu maamun sëñ Modou Awa Balla ñu ne ko ah moom day ay rakkam seex nañ lool mel nañ noo xëy na daal moom mënut mënut a agsi ci ñoom mënu leen a agsi ci wax sa yetti Modou mu ne baax a ba bañ dem fa rek yetti Modou yii kenn ko ne toog lu mat ñeen fukki at wala juróom fukki at xalifa loo bëgg am rek loo bëgg def def nga ko man nag li ma ci sëñ Modou Diop fii àllarba ju mag la daan bayal sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ Fallou Mbacké ci sama fàttaliku àllarba ju rëy te ci sëñ Modou Moustapha la ko tàmbalee ñu koy def ci jumaa ji jox ay taalibe yu bari yoo xam ñu bari ma naa leen a lim fii ñoo ne ci jumaa ji lañ nekkoon di ci liggéey sëñ sëñ ma Jóob joxe leen kër gi jàkkaarloog taqaloo kër sëñ Fallu jàkkaarloog jumaa ji foofu laa tàmbalee demee Tuubaa di ko fàttaliku ay 1957 58 di ànd ak sama baay booba Mor Ndong nekk gu fi woon <coughs> ab 46 fii ñëw rek jël si jël si sëñ bi ay affaire mbay ñoom di ko dawalak ak maara mbàkk ñoom ak ñeneen su ko defee ma dugg ci ànd ak sama baay ñoom dem Tuubaa noor fa noor bi jeex Touba Mbacke ak Touba Diop lañ yor kees goo xam ne ni si fa la sëñ Fallu euh, dalal ma Mat Diop bis bu yàlla sàkk fa la yendu ba gee ba naafi la ba gee mu soog a ñibbisi waat këram taqaloo kër sëñ sëñ kër sëñ kër sëñ Fallu gi waaye luñ baye fii ay oto yi naar bay Bayrut yi ñoo ko daan sëf ci ay transit yi di ko yóbbu ak i ay yoo xam ne di ko yóbbu euh, di ko yóbbu Touba fii ci xur wii lañ ko am bay am na àllarba joo xam ne kilomètre la gudde yaatoo 500 mètres mor na cornomètre ko saaño la soo xam ne buñ koy góob dañ koy màpp kere sa baay Saliou bay moo fa doon taxuraan ne waaw sa baay Saliou Mbaye ne ko bàyyi moomi loo waxati tool bi jeex na loo waxati mu ne gërëm naa leen sëñ Tuubaa gërëm na leen gërëm naa leen sëñ Tuubaa gërëm na leen nii rek liggéey rek gërëm naa leen sëñ Tuubaa gërëm na leen waaw leer na ma ne am ngeen sama ngërëm waaye mu it am na ngërëmul sëñ Tuubaa ni ngeen amee ni ngeen amee sa ngërëm rek ni ngeen amee ngërëmul sëñ Tuubaa ndax lii ngeen di bay lépp foofa man booba gone gu ndaw laa waaye fii la jëkka yanoo ay takk di ko yóbbu ca ca ngar la ñu ñu koy ñenn ñi di uh, semb ñi yor seen i dëggu di dëggu waa Kajoor ñëpp fii ñëw ci mbojj mi ci ci ci mbojj mi ndax am machine amul dara amut ñu koy sëf ci camion yi di ko yóbbu di ko yóbbu Tuubaa moom la ñuy dundalee ñiy liggéey sa jumaay ja sañ ma job daal lu mu am rek ci taalibe rek joxe rek lu am daal jox sañ Tuubaa lu am jox waa kër sëñ Tuubaa xeebut benn mbàkke mbàkke muy góor muy jigéen xeebut ci kenn lu am joxe ko day leb bay joxe am na ko fi ñëw koo xam ne dafay ñëw ci sëñ sëñ ma Jóob ak yor yor ni ko réeru ma biig te añu ma démb te tey ji du ma xañ sëñ ma jëm ni kon lu fi maa ngi si nekk rek lu fi nekk ci dugub rek nañ ko ci jox lu ko lu mën a añee tey ak suba ñu wër maa ngi siin yi dara amu fa ñu ne fëggaat su ñu ne fëggee su dara amu fi li fi nekkoon lépp natt nañ ko nekk lañ nattoon soq ko ba war ko wol moo fi des muñu nañ ko sotti wol ñu soq sot ñu soq sott bi soq ñu sotti soq ba biñu suttee soq ba soq boobee waa ji yóbbu ko motul dara ab taalibeem bu jóge Kajoor indi yaari gëlëm yoo xam ne gëlëm gu ne juróomi bëri gu lay sëf ginnaaw tisbaar ginnaaw digganteem ak takkusaan rek waa ji dem ci yor yor gi takkusaan mu am ñaari ñaari sëfi gëlëm yoo xam ne mu ne ko saabaanee nag gëlëm gi jox na la ko gëlëm yi jox na la ko ak lim sëf mu ne genn gi nañ ko daal di yóbbu Touba ak sëf bi mu dem Touba genn gi nañ ko sippi fii kenn ko ñu natal la si ñetti kilo dugub ñu rax gëlëm gi rey ko fees ko toj ko kenn ko ne am ci ndawal ñu reer ci tàng-tàng bi ca gëlëm yooyee ci lañ reer ak ci dugub joojee dégg naa nit ñi daanu jëll yoo xam ne kenn mës a gis loolu nga xëy ko liggéeyal ko baax lu baax rek ngay am boo ah, boo joxee li nga am ba jeex Sëñ Tuubaa defal la loo xam ne si dalay jomb wala loo xam ne doo xam foo ko jëmale ah ku joxe loo war a mat juróomi kilo mbaa fukki kilo nga joxe ko ci yor-yor nga xam ne bu asamaan si tey bu ëllëgee loxoy kese nga nar a fanaanoo avant takkusaan du jot ñaari gëléem ñëw mën naa wax ki ko joxe woon ak Kajoor dëkk bi mu dëkk ndax lépp goñ laata mag ñee ma ko wax te du ma ko fàtte mën naa ko wax waaye jërul ma ko wax ci rajo ndax ba ma ko waxee kuy mag dana xam loolu ku doonul dinga di nga xam ne lu baax lu loo xam ne bu la sëb sëriñ laajee wala bu la laajut itam war ngaa toog ba yor sa dara rek dem yóbbu ko ci sëñ ba koo xam ne boo ko joxee mu def ko ci sëñ Tuubaa wala yoonu lislaam xam nga kon sëñ Tuubaa fay na ko yàlla fay na ko yonent bi fay na ko ak dëkkandoo yim dëkk it fay nañ ko ndax yaari gëleem akub sëfam xam nga ne ñu jox la ko ci suba gi nga joxe fukki kilo wala fukki kilo juróom ci suba gi naroo reer naroo añ bu sa liggéey ñu indi la yaari gëleem mu rax genn gëleem gi genn gi mu yóbbu ko Tuubaa waaw ca ca liggéeyu jumaa ja rek buñu àggee tam bàyyi Cerno Faal koy daal di rëx rek ca nenab yu mag yooyu susoon ca ca jumaa ja rek ñu def ko cin yu mag di tibb di joxe ca bidong ba tooy na rek boo demee boo war sa ndab boo tegee ñu tegal la ci euh, yàq goo xam ne wala ceeb boo xam ne booba te ceeb jafe na <coughs> da ngay lekk ba yàq ko àndal <coughs> moo tax liggéey Sëñ Tuubaa ku mat a fonk la moo tax lii nu nekk nii day jëm kanam rek ni Touba tàmbale woon ci ci fooyooy ñu dëkk bi tàmbale woon ci fooyooy waaye ku dem ba ca kanam li kanam di nga fi gis loo xam ne lu kawe sa njort lay doon maa la wax loolu lu kawe say njort man musuma koo génn fa ne dem naa fa ci àddina bi waaye foo ma mën di dem fii ma ko gënal foo fii moom a gënal lekk ko fa net fii rek laa bëgg te sëñ Touba ak sëñ Massamba Diop ak sëñ Mat Diop rek laay roy sëñ Massa sëñ Mat Diop rek laay roy ndax bëgg sëñ Touba xam ni mu xamee sëñ Touba ak ni mu bëgg sëñ Touba rek laa bëgg sëñ Fallou nee na kon gutal ma xàllu jëm mu wutal ko xàll woo xam ne du jar Daaru Musi nu ko damaa xëy ne Touba fees dell bëgg ko taw si fii rek ay ngëneel rek kon nag la lay leer ne taw boobu dina ko taw fii bu feneen di nga am ci ngëneel loolee xàll wi fii la jaar ci sa tool baay ba tool sëliu mbay ba jaar ci dee bu mag rek continuer romb romb euh, dëkk kii ba na dëkk ba mu romb génn ci xewar rek daal di wuti Touba jarul ci benn dëkk daa romb Daaru Musi ca kaw ca jam nga xam ne suñ fële ba mu ñëwee fii ci fajar gi sëñ ma Diop julli na bay génn mu ne ko Moodu fo ci foo toll ndax waxtu wi mu ne ko noonu ko doon waajal ti daa julli ba dëpp bay delluwaat këram ndax bëgg bëgg bëgg sëñ Tuubaa rek waaw mu taxawaat mu li xaamal ko mu taxaw ca ginnaawam ba mu ba noppi mu siyaare ko mu soog a dem ak taalibe mu soog a dem euh, Daaru naan kër sëñ Cheikh Awa Balla kon nag ma kontaan naa ci lii ngeen ma woo tey ndax man du ma wax ci rajo du ma média buy wax waaye lu bari xam naa ko ti te bëgguma ko woon di wax daal nit ñi di ko dégg di ko weddi ndax lu ci bari dama koo dund leen li fekke naa ko leen li dañ ma koo wax te ki ma ko wax moo sama mooy sama baay moo doon loxoom du jorub sëñ mat jóob lu su ko jox ci loxoom la koy teg nee na am na boo xamee mu ne ko fukk junni yi ma la dénk de bu saa bët xonqee mas mu euh, mbàkke nag moo ko jox sama bàyyi bàyyi ba nga xamee ne leb na lebaat lebaat lebaat mu ne ko loo xam mu ne ko ah, fi ne kay xamatuma dara ndax yoratuma dara mu bitig bi may lebee yaakaar naa dara desatu fa mu ne ko taxal ma ñëw nee ngoon sa bët xong na mu ne ko xong na coro kay mu daal di ko indil ci ak mosuwaar la ko fas génne ko ci wëlisam ni ko loqat yi sërëm daal di koy jox moom suñ bàkk jaara jox ko suñ ma jóg ginnaaw tëkkusaan mu xool ko wàññi ko xool nii bi mu ko wàññee xool mu ni lii nag noo ko lijjantee mu ne ko lii de ko joxoon ci bi ñuy wër taalibe yi ni ma bu sa bët xonqee mu ne ko waa ji xongul curu curu la def xongul képp rek yem ci daa xongul curu waaye lii moom lii la di ànd ak nit kat xongul curu la def xam nga loolu bokkut ak tey jii nga xaye ko àndal boo ko mënee war war ko soo ko mënee nax nax ko loolu amul njariñ amul dara te teewul lu lu baax lu mu bëgg am am ko ay doomam it luñ bëgg am am ko fuñ bëgg toll ñëpp xam fi ñu toll te kenn du leen xamal dara luñ bëgg doxal du mën koo doxal te ñàkk a waree googee kat nag doo du ko war du ko def lenn lu mu ko jox tey bu ëllëgee ñëwee fekk ko fa man loolu rek laa doon xool ci moom ba nga xamee ne man lu ma yorol nit moom loo xam ne yoruma ko moom laa yemale bu may leb di ko di ko defee la daa koy leb defe ko leneen rek te loolu lépp ci mag ñu baax ñooñu rek laa ko roye xalaatuma bëgg yëfi kenn dama daan witti fii di bay bi ma mujjee bay juróom fukki bërigo laa peese te saa loxo rek laa ko béyee maag sa bay aadama bay noo àndoon di ko bay tool boobu juróoyi mat ma ma mel na man maa ko bay fii ci tool yi te daa koy gont ji ñu ne ma santaane ma ne xalaatuma ko sama bàyyi ne ma ngani ma ne ko xalaatuma santaane saa loxo bii rek juróom fukki bërigoy gerte juróom fukki bërigoy gerte ak lu mat ñaar fukki bërigoy dugub ma jox ko sama yaay ne ko loo ci bëgg nga def ko ci waaw man lu ma am rek baax na waaw kon nag sant nañ bu baax dëkk baal kanam rek ku fi nekkil xamal ne kanam la jëm loolu fekkul tey dina la fi fekk bu subaa incha allah ci barke sëñ Fallu Mbàkke barke sëñ Tuubaa barke sëñ Masamba Jóob barke sëñ Mat Jóob baax na jërëjëf barke sëñ Mbàkke Jaara jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf ñu am sëtu moom nee naa mooy ndeyjoorub sëriñ ji waaye ñu ci jàllale ay kàddu yu seede rek ci waajuram boobu nga xam ne moo nekkoon ak sëriñ Muudu Jóob mi nga xam ne moo sancoon dëkk bi nga xam ni moo nekkoon moom itam day joorub Serigne Modou Diop Serigne Modou sax daana fi jógee bàyyi fi Serigne Mbacke ci biir dëkk bi waaye itam noonu lay doxee ci biir kër Serigne Massamba Diop Samb gépp ba nga xam ne fi ne jamono ji Serigne Bassirou Diop fu mu nekk rek bu ne sëñ El Hadj Diop bëgg nga fanaan si fii ma ne sëñ El lu mu jàpp da koy bàyyi ndax wëlërante goo xam si ni wëlërante nañ ko mooy li sëñ bi doon wax fee rek dafa am loo xam si ni Oh, xoosu kilifa lay doon wala xoosu sëriñ lay doon mooy waa kër sëriñ Mbàkke Jaar gi ak waa kër sëriñ Mourou Massamba Diop ak waa kër sëriñ Massamba Diop saam gépp kon suñu am ngi sant bu baax di kontaan di suñu borom guddal sa fan nag ca bàyyi bàyyi la ak njaboot gi bàyyi ak sëriñ bi ba lépp loo xam ne yéen nga ko liggéey ci toolu sëriñ Massamba Diop saam bi rek nga def ko ci ni nga xam ne noonu nga ko bëggee baax na jërëjëf jël kàddu gi jëmale ko ci ki nga xam ne sii nii mooy sunu sëriñ ji sunu jëwrin muy sëriñ Alaaji Diop moom Serigne Abdou Jamil Diop ñu gën koo xam ci Serigne Alaaji Tawa foog naa dootuñu ko présenté kenn koo xam ne bokk nga ci yoon Serigne Massamba Diop kon Serigne Alaaji bisimilah danoo bëgg ku nu leeral ci diggante ma Massamba Diop Samb ak ki nga xam si ni mooy sangam bu tedd ba di si Ahmadou Bamba Xaadim Rasul ak ati Serigne Massamba Diop Samb yim ñëw ci Serigne bi ak itam bi mu fi bàyyi ko ñaata at lam man at la ñëw ci Serigne bi man at la jóge ci Serigne bi dem sëriñ bi beral ko daaree boppam ak man at la génn li nga xam si ni moo di àddina wuy ju borom tabaraka wa taala ak yi leer rek ci sëriñ Masamba Diop ndax man ñoo soññ bu baax ñun ndaw tuut tànk ñi bisimilah aousubillahi mina seytaan rajim wa inni u'iizuha bika wa suriyataha mina seytaan rajim rabbi ahusu bika mina hamasati sayatini wa ahusu rabbi an yahdurun asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yéen waa daayira bi yéen waa daaru Diop ngi leen di nuyu nuyoo ba gën a tedd ci am nuyoo tàmbalee ko ci sunu jëwrin ji nga xay siini moo nekk fii di sëñ Alaaji jóom moom sëñ Mbàkke Jaara waaye ak rakkam yi nga xay si moom laa fekk sëriñ eh, am sa mi nga xay moo nekk ci biir kër gi maa ngi leen di xamal ni nag am na ci loo xay si xam naa yi dama koy bàyyeek ostaas Sall moom yaakaar naa diggante at ya ak daat baag yooyu yëpp moom mën na leen koo wax bu ngeen ci àggsee bu soobee yàlla bu ngoonee waaye li nga xay si ni daal mooy yéene joo xay si ni fi ma leen fekk rek ngeen joxe ma ko fi foofu tama am ko ci yéene te sunu borom def ni nag it moonu boole ci boppam ndax sëñ ma sàmba mooy seet ñooñam mu tànn leen ñi nga xay noonu la yonente bi salallaahu taala alayhi wa sallam defee tànn julit sëriñ Touba ñëw fekk julit ya mu tànn ci murit noonu nag it la sëñ ma sàmba Diop def tànn ñooñam kon nag bu ma boolee ci ñooñam rek alhamdulilahi rabil alamin ñi nga xam ni daal moom nit ku teel a gis sëriñ Touba la ni ko ñu bari di waxee fekk ko saam saar googee ànd ak moom boobu fi biir kër waajuram te la nga xay si ni moo ci ëpp solo mooy bi mu agsee rek la fekk euh, ci biir néeg maam euh, Mamor Anta Sali bi yéen ba fanweeri alwaya ak yet mu bind fanweeri alwaya ak yaar bàyyi fa genn ja bi ñoo doon bokk di ndigalal maam Mor Anta Sali la am ba tax mu sant ko ni ko na nga na nga na nga ma fonkal sëñ sëñ ma sëñ ma Samba Diop mii. leneen la ca des itam ndax sunu kilifaa ngi nii di doog a agsi sax muy sëñ sooy bu Diop ñu moom dana am leneen yooyu nga xay si ni moom ngeen di wax dana am lu mu ci xam waaye li am solo daal mooy sëñ ma Samba Diop daal lu ñu xaase fi Serigne Touba lu ne xaasalaat nañ fa sëñ ma Samba Diop. kon nag noo ngi leen di seereel ni daal noonu ak njabootam ci leen bokk te yàlla dogal na dëkk bi itam di Daaru Diop. day ab cër ci sëñ sàmba jóob cër boo xayi si bu am solo la ndax li ko waral mooy sëñ ma jóob lu bari ci ab liggéeyam fii la ko liggéeyee ginnaaw yàlla dogal na nag Daaru Diop moo am bis tey tey di dëkkub sëriñ Mat Diop boo xay si ni sëñ sàmba Diop ko moom waaye sëñ Mat Diop Massamba moo fi jiitu moo fi def lim fi war na def lépp kon ñi ngi xam ni kon Daaru Diop cër bu rëy la ci kër sëñ sàmba Diop ba tax na mboolem njabootu sëñ Massamba Diop mi ngi fi di leen xamal ne nag ginnaaw xam nga euh, bi ma bi muy man man am na fu ma mën a jëm waaye ginaaw comme sama kilifa toog na dama koy bàyyee li des ci kàddu gi mu àggale ko muy sëñ sooy bu Jóob wasalaamaaleykum wa rahmatullah kon mbokk yi ñu continuer rek euh, ci liggéey bi jox sëriñ bi mu yewi mbooloo mi ca ñaanal leen jëme ñu ci ay leeral ci jëmm ju tedd joo nga xam si moom lañuy defal bis bi muy sëriñ Massamba job Samb waaye nag ak ci sëriñ muudu Diop moom sëriñ Massamba Diop Sam ak sëriñ Modou akuk dundam ci digganteem ak waa kër sëriñ Massamba Diop Sam kon sëriñ bi euh, bismillah ñu baaxe ñu ci ay leeral rek ngir ay soññee ci euh, kër sëriñ Massamba Diop Sam ak ci màggal gi itam ndax ñu mën cee jàngawaat beneen pas-pas ci jëm ci kër sëriñ Massamba Diop Sam bismillah waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu alhamdulillahi wahda wasalaatu wasalaam ala rasulillah bokki jullit yi bokki taalib yi lu bare bare di sant gën ngaa def lu cant waaw laf li day def loo mbir mu la man la moo tax na damaa dikk rek ngeen ci ñu bàyyi ko waaye def sant leen bu baax a baax hmm, ki ngeen di ñi itam ki ñi màggal ku màggal ku màggal nag ku màggal ku ne da nga am lu màgg Cheikh Mate Diop Massamba ku ne bi mu doon ci yoon wi yëmut ci rek sëñ ma sëñ ma Sàmba ko jur waaye nag sëñ Tuubaa ko yar ba nim rëf na te sëñ ma Sàmba sëñ ba mu waxee sëñ mag bi ni ko ah murid nañu murid na daa doyee di mais ko ah man xam xamoo ne ak garab sax moo ne doy na doy mu doy xam nga dama mu ah, de sëñ bi daa doy mu ne ko waaye ah, man garab sax moo ne doy mu doy woon na garab gi na doy rek mboolu boor ko ak garab rek mooy loolu mu dëgg kon nag kon nag xam nga loolu moo tax euh, suñu doon def tawfeex yu rëy rëy rëy rëy rëy tubaakàlla euh, liggéey na wér wér euh, nett nañ ma ci lu xam lu mat xam la ma am sas bi ñu njëkk sas ci liggéeyu jumaa ji te sëñ Modou Moussa sase ko juróomi junni la ñu tollale ko ak sëñ Modou Abala ak sëñ Modou Mahmoud ak sëñ Modou Xabaan ak sëñ Modou Massamba Diop ñu bari nag ni ñii sëñ bi toll la de duñ duñ war a moom duñ nax duñ natt moom sax xaaral tollu wuñ dégg naa ko nettali ne ab sëñ sëñ diw nee na ah Modou Massamba Diop ñu ne ko boole noonu waaye ba wax ci àggee fa sëñ Modou Diop dañ ah man de damaa nekkul foofu sax ndax matal fas fas yi defe ko njàmbar ñàkk koo matalit defa ko yaafus waaw sas yi matal matal ko def ma ko njàmbar mu ñàkk a mat itam defa ma ko yaafus li wértu wala sëñ bi ñi ma boole dañu ma jox naa koy burik foofu daal mën na laa nekk waaw su mu doon juróom yooyu tegaat tegaat na ci juróom boobu juróom juróom yombut waaye tegaat na ci juróom moom suñ mudu ma sàmba matal ko moo tax ma ne ku màgg ku màgg la ku màgg nag ku màgg la mën a màgg màgg ñi ñi jikk ba fekk barab bi itam ngir màggal màggal ku màgg suñu borom mën nañu ci dox màggal ñu yàlla yàlla defal tawfeex ak taysiir barke suñu tawfeex yéen ñi tamit li ngeen di wut yàlla ngeen koy fi yebal ba indi fi itam yàlla yàlla defal tawfeex ba li mu yóotu mu jot ko te yàlla xëy ci njub ñun ñëpp nag yàlla yàlla boo xëy ci njub xëy na ci ak jaamu yàlla barke suñu tawfeex jërëjëf. li ma jëm moom li ma ci moom dem ci jàkka. ak di joxe hadiya di ko jox Serigne Touba moom daal amalu ko woon ak guddi amalu ko woon ak bëccëg moom da ko daa def rek ndax ku daa jël ay million di ko jox Serigne Touba ci sëñ Mour Jumba Samb laa laa ko mës a gis ak di di eggalil ay nit lu war a mat fukki nit muutal leen ay soxna ñoom ñëpp man de loolu xam naa ko sëñ Mour Jumba Samb jaamu yàlla ak joxe addiye loolu de xam naa ko sëñ Mourou Moussa bi Diop waaw waaw loolu waaw ak jàng alxuraan liggéeyal sëñ Tuubaa maa ngi ñaan si sëñ ngir ngeen yàgg ñëw fii si dara si sëñ Tuubaa ak sëñ Massamba Diop Sam barki borom Tuubaa loolu de laa si xaman waaw waaw. <laughs> waaw waaw bokk na ci bi nga xamante ni si waaw sëñ ma Samba Diop Sam ah waaw wax ni sëñ ma Samba Diop bi mu njëkk a gisee ak Serigne fekk sëñ ma Samba Diop Sam mi ngi jàng mi ngi def majaalis foofu ci ku ñuy wax maam maaram léegi mag ñi booba maam Mor mi nga ànd ak Sëñ ñu doon gane si maam maam Maaram jot nañ faa def léegi bi ñu egsee nag mag ñi bi ñuy waxtaan euh, ci ni ñu koy waxee tout tànk yi dem ba ci genn garab gi jeganteeg ñoom ñu toog fa wax nañ Sëñ Tuubaa ni ko sëñ ma Samba Diop Samb fàkkal ma fii ci wetu genn garab léegi nag sëñ Tuubaa nee na tuuti kon sax mu euh, sëñ Masamba Diop Samb nee na xawoon naa sax kii tuuti ndax lim ko mage ci jooy jamono ndax mi ngi mel nit ak ñaareel bi tofam waaye nee na mu ne daal li tax mu di ma fàkkaloo nee na ma fàkkal ko ba noppi fekk ñi ngi def majalis waaye bi nga xamante ni si diglu na ko sëñ Tuubaa diglu na ko mu wax ba noppi sëñ Tuubaa nag ni ko xaaral ma dooli la ci tëralaat la bind yi ci kanam léegi ci la ko tëralaatee a ah, njàngale mi daal gën a am njàngale mi gën a am kii <laughs> njàngale mi gën a am solo lool lool lool léegi ci la ko sëñ Massamba Diop Samb takkee loolu téye ko bu baax na ma ko ànd ak moom foofu la njëkk a na ma ànd ak moom waaw bi nga xamante ni si eh, eh, ngan gi dem na ba nga xam ne jeex na fekk na ñoom saa yu tëraloo ba doppi bu demee foofa sëñ Tuubaa di ko dollilaat ci tëral bi majalis bi Eh, léegi bi nga xamante ni si nag léegi Sëñ Tuubaa ñëw na ko nee na ko sama papa day nee na dañuy dañuy ñibbi mu ni ko ah, mu ni ko mu daal ni mu daal di bàyyi noonu bi nga xamee ni tàggoo nañ ba dem ci la daal di ñëw ci maam maaram ni ko damaa bëgg laxas mu ni ko ah laxas moom fii de moom bu dee wàllu alal yépp yëpp mi ngi fi bu dee xam-xam itam am na fi mu ni ko ma daal bu ma sañoon rek damay laxas léegi nag ci la ko daal di yeewee mu daal di def directement daal di fekk sëñ Tuubaa foofu wax nañu guddi gi mu ñëwee ñuy reer sëñ bi mu ànd ak sëñ bi ñu dem di reer yi bi ñëwee am na ci biir bi ñuy reer boobu sëñ Tuubaa dañ koy daggalu sas muy bay jëwriñ yi booba léegi nag ñu ngi dégg bi ñuy bi ñuy woote reer jëwriñ am na ko reer bi di ku ci reer bu bët seetee dinañ la daggalu sas léegi bi nga xamee ne loolu am na ñu ni ceel rek ñoom euh, ndax ni ñu leen yare woon duñ di tontu waa léegi bi ñu reere ba pare ba ñëw ci néeg bi Sëñ Tuubaa ne ko dégg nga kooku li mu doon wax mu ne ko ah, mu ne ko dangaa defoon ne yow lay wax mu ne ko ah ko déedéet dañoo defee ne maa la fi indi ngir nga may bayal man ma toog ci kër gi mu ne ko moo ne di noonu lay demee ci suba ga ba ñu xëyee ñu daggal ko sas nañ ko waxee woon ban ko daggaleew sas léegi mu bay sas yu ba mu àgg dem bayaale sasu sëriñ Tuubaa bi jëwriñ ja jëwriñ ja ci boppam daal am ku ñëw ci jëwriñ ji ni ko musiba am na mu ne ko ah, mu ne ko gan gi de xam naa yàq na tool yi ne xam naa ne jeexal na wu sasam ba bayaale sa sëñ ba ña nga ne sëpp seen i gopp jëwriñ ji dem ba àgg xoolal bopp gis ni daara ji kay daa am gan ndekki waaw loolu daal bokk na ci nga xam ne bokk na ci daal ki nga xam ne moom moo njëkk a nangu bi ci Serigne Touba ca boobu Serigne ko daan daggalu sas mu yor gob bi boole di yor kaamil bi daal dañoo miinul nag daanaka dañoo miinul wax ci ci ci boole <laughs> ñoo ngi sant bu baax a baax nag wax dëgg yàlla gis nañ ne daal la fi newoon jógewu fi waaw ñu gis ne bi muy ñëw nag moom ku jàngoon la woon nag jàngoon na ba doon def majalis noonu waaw daanaka réer dañoo dañoo nag réer ci nekkoon jàmbaar loolu nag ndax xam nga mag ñi dañ daan boole liggéey ak jaamu yàlla loolu lañ daan boole waaw ndax yaakaar naa ne kon bokk na ci daal ñi njëkk a ñi nga xam ne ñoo njëkk a eh, nekk bi Sëriñ tuwa ci yaakaar naa ne ñooñu ñooy ñi gën a nite ñi njëkk a ñi njëkk a ñi njëkk dugg ci Serigne Touba ñoo ñoo gën a nit kon yaakaar naa bi mu ñëw ci Serigne kon ak nite boo ko def boo kon ak nite moo ko ci yaakaar waaw waaw yaakaar naa ne <laughs> ndax ndax gis naa ne ñi nga xam ne ñoo ànd ak Serigne ñooy ñi gën a nite dem nañ ba reconnaître loolu waaw euh, dans le monde entier donc kon ñu gis ni kon kay moom bokk na ci ñi gën a nite parce que moom bokk na ci ñi fa jiitu waaw dañu ni ñu waxee mooy moom gob bi boobu Serigne Touba dañ koy daggal sas mu yor gop bi boole kook di yor kaamil bi moom moo jëlee gob bi foofu ci loxol sëriñ Tuuba waaw kooku mooy sëriñ Massamba Diop Samb waaw euh, <laughs> dañoo miin wax ñoo ngi jégalu bu baax a baax eh, dañ ñoo bett <laughs> incha allah <laughs> ñoo ngi jégalu askan wi yëpp macha jërëjëf mu mel ni mbokk yi doon seetaan ñoo ngi woon fii ci fi nga xam ne si ni mooy kër Baye sëriñ Diop ñu àndoon ak xalifaam bi di ko ñaanal suñu borom guddal fanam lool. ca wéral ko muy Cheikh Mouhamadou Lamine Baara Diop moom Baye Serigne Diop di ñaan suñu borom dëgëral ko ba taxawaay boo xam si ni war na ko taxaw ci kër Serigne Massamba Diop Samb mu ko ci ni nga xam si noonu la ko bëgg taxawe ak ci coobar si bopp moom sama xaritu bopp la moom moom loolu la may wax moom sama xaritu bopp la kon maa ngi koy ñaanal bu baax a baax barki Serigne Touba wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu أمرنا سهل لنا لنا وبنا asli sutóori asli umoori ba chef yooyu léegi nag ba képp say maa ngi ñaan Sëñ Tuubaa yal na yàlla jàppale nii ndax lii ngeen di dox ci ah, Sëñ Tuubaa ca kanam rek la leen di yóbbu ndax Sëñ Tuubaa moom amul tànki ginnaaw yooyu kanam la def waaw ah, yal na yàlla jàppale leen ba fu ngeen bëgg a yàgg na leen fa yàlla ak yeggale ak Sëriñ Tuubaa ak sëñ Masamba Jóob sax waaw sëriñ bi euh, gars yi ñëwoon fi ngir doon soxla ak laabire ci wàllu dëkk bi wàllu daayira bi ak bis bi nga xam ne dañ koy def tey ñu dara jaale ko kenn ci kër sëriñ Massamba Diop Samb mën nañu tënk sëriñ Massamba Diop Samb sax ci jëmmam jooju muy sëriñ Abdou Samad Diop di ko ñaanal suñu borom dolli ko ay leer bu baax a baax barke sëriñ Touba ñëw fi nag doon taataan ay kàddu yoo xam ne si mbooloo mi lañ ci mën a jëriñu rek asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di leen siyaare bu baax di jiital nuyoo bi suñu kilifa gi sëriñ Soxaybu di ci taftal njaboot gi nga xam si ñëw dëkk ci kër gi di sant bu baax ci bis bi di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mu defal leen ci lu kawe suñu jot bis bi nag dafa làmboo ay mbir ndax jëmmi sëriñ Masamba Jóob Saam mi nga xam ne moom lañuy ñuy sant waaye kenn ci njabootam bi nga xam ne moom la ñu jagleel bis bi muy Serigne Abdou Samad yàlla nañ suñu boroom yokk ay leeram te taasin ci barkeem euh, ñu nekkal ko fi di nab nabi ci ginnaawam moom la ñu ci njabootam bi xam ne moom la ñu jagleel bis bi Samad yàlla nañ suñu borom yokk ay leeram ñu nekkal ko fi di nag na ci ginnaawam ba lépp loo xam ne si ni bàyyee na ko fi mm-hmm. ñu fas ko yéenee taxawe euh, di sant itam njaboot gi nga xam ne am gis-gis <coughs> bis bi jëlee ko sëriñ bi mm-hmm. di sant sant bu mm-hmm. xam ne am na fu ñu tàmbalee waaye amul fu ñu suñu borom subhaanahu wa taala mu defal leen tawféex te lépp luñ fi ñaan hmm. ci xasida ji alxuraan karim suñu borom jógal ko ci yool ba moom ñam ko fekk ak ñam ko fekk ñëpp ñi nga xamante ni ñoo am gis-gis bi suñu borom gën leen yaatal gën leen a tawféexal ba leen yéene yëpp suñu borom ak leen ko ñu ngi sant bu baax jéggalu kàddu yi ndax dëgg dëgg asalaamaaleykum sëriñ Mourou Moustapha moom mi nga xam ne si ni mooy xalifa sëriñ Abdou Samad ci toog yi jamono ji ñu koy ñaanal suñu borom dëgëral ko moom itam te kàttanal ko ba lépp loo xam ne yéene na koo liggéeyal waajuram ba yéene koo liggéeyal maam ja mu def ko ci li nga xam ne la ko bëggee barke Cheikh Massamba Diop Samb mi nga xam ne moom lay liggéeyal barke sëriñ Bassirou ak waa këram wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu